République euh, Diomaye Faye est annoncé à Banjul démb mi ngi woon Mauritanie alors l'interrogation mooy quel type de diplomatie la bëgg wane noonu par ces par ces actes qu'il pose en réservant ses premières visites à euh, sur l'international à ses pays voisins quelle diplomatie en tout cas ngeen gis en perspective avec Bassirou Diomaye moo commencé par yow xëy na di ñu ci mën a. oui je pense que aussi c' est c' est aussi normal que les chefs religieux. parce mm-hmm. que diplomatie de bon voisinage quand même. Mm parce que c' important li ñu seq oui voilà li ñu seq ak Mauritanie ak des relations un peu mais c' est très important li ñu lié ak Mauritanie dafa rëy. Mm-hmm. donc Gambie Gambie suñu ci biir suñu biir la nekk. donc mu doon réew yoo xam ne c' le même peuple. c'est le même peuple moi des moi j'ai des parents en en Mauritanie am naa ay parents sama nijaay bi topp sama yaay Fallou Thiam ma koy nuyu ak ñoom ñëpp mais ñoom ñëpp Gambie la ñu installé wu bi may jàng sax chaque vacances Gambie laa doon kii parce que boobu tailleur laa doon jàng donc je pense que c'est fondamental que mu jege leen parce que sur le plan de la sécurité fondamentale sur le plan de le renforcement culturel c'est fondamental mm -hmm. sur le plan même de la réalisation des projets parce que sénégalais yi traversé souvent gis nga li nga xam ne moom la ñuy kii te y la négociation sur le le le le, le pont Bara Banjul donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne mun nañ ko améliorer de l'autre côté gis ngeen euh, pêcheurs yi tracasseries yi problème yooyu ñu fay ñu fay rencontrer fleuve bi ñu seet je pense que loolu daal man moom laa gënoon d'accord gis naa nag président Macron mu bind ne invité woon naa la président et son premier ministre mais bu ñu jógee fii amul képp ku mun a doon mais nañ toog waxtaan ak moom face a face entre gentlemen mhm. ñu ne la lii mooy am ñu lii lañ gis léegi mhm. donc voilà oui euh, Cheikh Sadibou comme foofu nekk ma remonté oui waaw euh, li type de diplomatie li président Diomaye <coughs> def bànjul mhm. lu ñuy rafetlu la li muy defi bànjul suba li mu jot a def fële Nouakchott yëpp d'accord nañ ci ndax euh, mooy li ñuy woowee diplomatie de bon voisinage et yaakaar naa ni bu weesoo Banjul dafa war a dem Conakry. Mhm. li tax mu war a dem Conakry. chaque jour ma ko ñun ñi bu ñu naanee ndox nañ ko sante Guinée. le Sénégal toi fa la Sénégal le fleuve Sénégal di tiire sa source. sur les hauts plateaux du Fouta Djallon à 1500 mètres d'altitude. entre le Baffing et le Bakoy muy deux ruisseaux yuy jóge foofu ñoo ñëw alimenter fleuve Sénégal. yow nga leçon bu sama. <laughs> non bi ngay wax. <laughs> am na sama copain bu ma fàtte. tout général la neex. moi moi je peux rester. dix heures de temps di déglu. <laughs> sama leçon boo xam ni. Eh alors alors Guinée. oui Guinée li may conseiller suggéré président Diomaye c'est une suggestion mhm. Malal avec les chutes du Fouta Diallo c'est-à-dire Afrique de l'Ouest dafa mun a am autonomie énergétique mhm. à travers mais de grands barrages et c'est réalisable man coopération boobu laa bëgg am entre le Sénégal et la Guinée gis nga Guinée ku koy ab Afrique de l'Ouest da ngaa xamul Guinée mu les sud du fleuve Fouta Diallo ñoo alimenté fleuve Niger fleuve Niger bi dam ba ni jàll Mali Niger Nigéria ba Benin Sierra woon li fa nekk fleuve Gambie fan lay jógee origine am Sud Fouta Djallon moo déversé wu jaar ñoo ko la ko ba ñëw former fleuve mais fleuve Gambie alors ñun suñu coopération dañ ko war a renforcer avec les Guinéens tout toute l'Afrique de l'Ouest ñoo war a travailler à ça pour avoir une autonomie énergétique mun na produire des milliers et des milliers de kilowatts kilowatts d'électricité loolu laa gëm mhm. Ale wala yow yaa doon laaj. gaa yi dañ ni gaa yi yi dañ ni diplomatie de bon voisinage. waaw ah. olof moom da koo tënk di dëkkandoo jàmm ci dëgg la <laughs> olof moom li wax maanaam moom la président doxal mooy mm. dëkkandoo jàmm ca gën. balaa nga naan naam fenn di fa nuyu ci nga nuyu say dëkkandoo ba pare nga xam ni dafa am lu leen lii. suñu dëkk yi tubaab bee am nu mu ko daggee. mais ku ci nekk xam na ni ñun ak Gambie presque même peu kële yi la. boo demee Fuuta des fois doo xàmmee sax fu futanke yi ak waa Mauritanie mhm. presque benn la mhm. te ku nekk xam na ni aussi dafa am ay problème yuy am parce que suñu nappkat des fois buy dugg sax ci Mauritanie du ko sax sentir mhm. ku nekk xam na ni problème mu bois wu Casamance bi ak diggante ak Gambie problème la yoo xam ne des fois day am donc booy doog a egsi dem seeti ñooñu diplomatie de bon voisinage lu am solo la li ñuy wax rupture dafa am fu muy yem gis nga dama gis benn mot ci diplomatie ñu ni la continuité ci diplomatie rek laa gis ñu bind ko j'ai beaucoup apprécié parce que mhm. dama xam ni ñi ko def ay boroomi xam-xam la parce que li tax ñu bind continuité ci biir di bi ci bi mu concerné diplomatie mooy le, le régime sortant a réussi beaucoup de choses sur la diplomatie ce qui s'est passé pendant ces douze ans là nos droits de tirage spéciaux yi non diriger Union africaine UEMOA diriger euh, CEDEAO am yu bëri yoo xam ne réussir nga ko sur le plan africain non lu jafe la woon. donc continuité président Diomaye dafa am même lu ma dégg mu wax ko ci campagne certes nag diplomatie kenn du ko defee ci mbedd. mais dafa dalal xel mooy lim ni CEDEAO mm-hmm. li ma wax dafa am solo lim ni CEDEAO pays EAS e yi mm-hmm. pays EAS yi que dañu dañ doon xaar Sénégal presque ñëw foofu mu ni li mu gëm mooy coup d'état institutionnel yi am war naa mhm. arrêté waaye lépp lu ñu war a waxtaane ci biir CEDEAO mhm. donc je pense que politique diplomatique boobu ñu tàmbali bu dee nii la continuer euh, lu baax la oui waaw man pour man bon stratégiquement président bu falu dem Gambie moom loolu c'est dafa mel ni nga dem ci beneen wàllu Sénégal dañu dañu dañu dañu bokk ak Gambie lu bëri mhm. et je pense que ku sóoraalewul man sama sama grand frère bi ah. bokkal benn yaay. Mhm. nekkoon na directeur rajo télévision oh, Gambie. Gambie waay non non combat combat Mor Fadam Tyson bi ñu tëgg Gambie. Mhm. sama mag bi bi ma nampal benn meen moo ko tëggoon. Ah, tombog Seydi noo dafa am solo ba pare ba pare ba pare. ba euh, conflit Casamance bi mi ngi fii. Mhm. Gambie c'est stratégique. on a ay rapports yu am stabilité Gambie. dafa am solo. mooy suñu stabilité non le Sénégal est très impliqué si niveau sécurité Gambie ñëpp xam nañ ko président Gambien dam ñëw na fi mais aussi dafa am lu ñu bokk ak Mauritanie. Mhm. mooy pétrole. <laughs> ak gaz ak gaz donc li pour man li yóbbu li yóbbu euh, président Diomaye fay loolu c'est déjà pour faire état des pour xam nan la beneen bi man beneen jàngat bu ma ci am mooy que stratégiquement on a quand même le Mali la Guinée. Mhm. le Niger et le Burkina ñu am benn. ay régime militaire ñoo xam ne ils ont pris des engagements pour que ñu dem ci ci ay régime démocratique mm-hmm. et ça tarde à à venir mm-hmm. et aussi président li ngay incarné muy mbirum démocratie ñoom dañu xeex pour jël ñun position bi ñu nekk ñëpp ñu envier on a une chance énorme mais li xew ci réew mi dafa bëri on a un président jeune qui a presque un autre président à côté de lui loolu la yàlla dogal. on a deux deux leaders. yoo xam ne. une élec une élection deux présidents. non waxuma deux présidents non j' ai de raisons. non deux présidents non bàyyi loolu nag. waaw mais non xam nga la moo gën a. c'est-à-dire que man mi wax man mi wax li ma wax dafa leer. bu leen ci jéem bu bu bul jéem yokk. dama ne la on a un président et quelqu'un qui est très présent. ki am lu muy incarné. mais quelqu'un de Diomaye président dire une élection de président ah, moom moo ko wax de. heureusement donc li ma wax li ma wax mooy man dama. gravissime non man man sama dama bëgg di wax bu may wax damay wax que ni loo xam ne maa ngi koy gis nii. li ma xam mooy que ni ñu falee président bi ñu fal à côté de moom dafa am beneen nit bu taxaw mu doon force je pense. Mhm. Ah? parce que loolu dafa am lu kenn mën ñaar ñoo ko ko dàq maintenant dafa am benn tendance bu am si ñeenti président yooyu muy Guinée muy Burkina muy Mali muy Niger transition démocratique dafa war a am ci dëkk yooyu parce que ce que li incarné lii ñaar ñooñu quand pourquoi ma convoqué euh, Ousmane Sonko mooy parce que dafa am benn figure boo xam ne ci wàllu démocratie daf ci xeex te dafa nekk loo xam ne moom noonu la ñu jëlee réew mi donc tu ne trop t'associer avec des gens yoo xam ne dañu jël nguur pour restaurer ordre ba pare jox ko euh, civil ñor ko nga gàddu affaire bi ñu ngi naan gina kañ la élection di am ak kañ la war a am nga naan maa ngi xool dissoudre parti politique yi dugg na génn fii tu ne peux pas aussi di incarner benn affaire ba pare dem sës ci koo xam ne contraire li ngay incarner la incarner. Mm-hmm. c'est mm-hmm. important. Mm-hmm. moo tax je pense que c'est pas fortuit que mu dem ci ñaari dëkk yoo xam ne au moins ñooñu li fa leen fa teg. démocratie démocratie moo leen fa teg. donc aujourd'hui le rôle Sénégal. si si si ci loolu dafa am solo ban relation la ñu war a am ak euh, président wu Burkina bu Niger bu Guinée ak bu Burkina Faso c'est très important et tubaab bi ñu ngi koy xool parce que le Sénégal n'est pas n'importe quel pays et bu dee c'est c'est te loolu ñu bëri dañ ko doon jot c'est des jeunes ñoom ñëpp ay jeunes lañu donc nu on a dañu élire président élire président demul jël a jaasi wala fital ñëw jël pouvoir mmh. te dañu bëgg président yi même bu ñuy am yeneen rapport ak yeneen président yi démocratie bi ñii ñëpp di xeex ngeen di ko xeex dëpp ah ñu instauré ko président bu fi nekk ay carte jële la fi ay carte fal la te loolu boo ko bëggee incarner il faut xool aussi sa ay. Mm, nawle sa ay nawle c'est important. Malal. yes um, relation bi ak Mauritanie lu baax la. Mhm. pétrole nga fa gaz nga fa te jën yaa nga fa. bés bu nekk effectivement nos pêcheurs euh, meurent dans les eaux donc préserver cette relation dafa am solo parce que dañu am antécédent 1989. suñu diggante ak Mauritanie. donc c' est une relation à dont la stabilité et très fragile. fragile. donc loolu lu ñu war a bàyyi xel. man sama yaay waa Mauritanie la mbaañ la dëkk. Mhm. ñu màggee njaareem sama nijaay sama ñëpp ñu ngi foofu en Mauritanie à Nouakchott mais pratiquement à Mbaye Gambie. foofu laa bënnee sama nopp bi en 1992 <laughs> avec mon ami Johnny Boy moo ma ko bënnee dafa ñëwoon vacances Guédiawaye mu ni muy waxee Johnny Boy bi daan fecc pour coot non non non non ah, doon ñu njaago la ñëwoon nii rek Guédiawaye ma ni muy waxee neex ma style bi style am neex ma et je suis mm. allé rendre visite en 92 en Gambie ma réer Soma sax laa jaar. <laughs> Johnny Boy Junior rek am nga tur bu bees Johnny Boy Junior. Johnny Boy mu bënal ma mu bënal ma sama nopp nopp bi parce que dama fan woon Mamadou Lamine Maïga quoi. ok ah Maïga ne sax. moo tax Maïga grand chanteur. dañu gëm yooyu nag ñoom ay bënn nopp ay kii. donc balax maa la woon. waaw non Maïga c'était autre chose ah. il m'avait convaincu avec une chanson qui s'appelle lu baax lu baax lu baax loolee fan lañ koy jëli. yaa ngi kon hardcore bi après la dugg. non mais ñoom may nga ay gangster lañu woon. Eh. jamono eh. waaye jamono ay gangster lañu woon. <laughs> nitu mbedd pour sax donc en fait dafa am loo wax ci ci Guinée. mu nekk relation bu ñu war a taxaw. mu am temps yi wax yuy jóg ci communauté guinéenne. waaw merci waay ma la nañ leen fi jëli ñoo jël place su Sénégalais yi jëluñu place su kenn. c'est des gens très corrects. Mhm. foo leen fekk ñu ngi seen biir boutique. te chômé wuñu. chômé wuñu yor seen kaamil di jàngal seen doom yi ay alxuraan di liggéey honnêtement. ma yokkal la ci. et puis dire que c'est des gens qui nous c'est faux. mais kan moo wax dañ leen fiy jël. mais xaaral ma yokkal la ci membre de votre coalition. ah non xaaral ma yokkal la ci ah non non non non ça non je <laughs> quartier. je ah, parle pas de politique ah man li ma wax ci koñ naa ko de ça nous concerne. Badara yow da ngay ree mais xam nga li muy wax ndax. non y' a de leur coalition qui a dit ça. non par contre identifié non non Ablaye yónnee naa la message xam nga man li muy wax mooy. <laughs> <laughs> politique d'immigration la wax. je suis foncièrement d'accord que ñu am beneen nouvelle politique d'immigration. mais mais entre Guinée et Sénégal c'est pas une politique d'immigration. non c'est une politique d'immigration. non non entre Guinée et Sénégal un pays pour un autre. Ah, entre Guinée et Sénégal il y a pas de politique d'immigration. c'est une politique d'immigration mon cher. voilà le problème. bi euh, on doit savoir na bokk ci mesure yi. la rupture c'est billahi wallahi buubu du mbokk. moo tax il faut der sous l'air Diomaye. mesure yi bees la rupture. bon non non non dama lay yokk ci Guinée. waaw ci Guinée ci Guinée dama koy yokk der. der pour ne pas der loolu du dëgg loolu du dëgg. waay waay yow tamit waay du ma lay tooñ waay yow. non non fu la jalon bi lañ doon wax kii bi non Bassine et Bafoy. mais yoole la yoole la yoole la. non non mais bon tàmm na nii. non yoole la non non c'est de la diffamation. non non non. naa dégg naa dégg fii ak 6 mois ci plateau bi kenn duñ fi takk jabar. Ah. waaw léegi dem ba fi nga wala bokk. Eh. ma de. Ah, léegi dem kii tey anniversaire u jabaram la de. mais yow non waxuma moom de. kon yow ku jël xar ah. dégg mu turam.